Euh, semaine passée conseil interministériel bu ma juumal euh, le premier ministre mi ngi doon insister ci règlement intérieur u école yi règlement intérieur u école yooyu noonu mu ngi ci doon wax bay fàttali wax bi nga xam ne waxoon na ko jamono yële muy lu jëm ci euh, xale yi nga xam ne am nañ droit muuru bu leen kenn buntu xataat ñu bàyyi leen ñu ñu ñu dund liñ bëgg a dund point boobu boo xoolee da ciy insister lu bëree bëri yow en tant que directeur école noo nooy dundee loolu euh, monsieur Traoré. merci Cheikh musa ci ci question bi di am contente lool pour répondre ci. Mm-hmm. ndax euh, éducation dafa nekk lu ñu soxal. Mm-hmm. te mu nekk loo xam ne c'est primordial. ñoŋal suñu éducation moo war a njëkk leneen ndax éducation jeexitalam mm-hmm. mooy am ci économie ci pauvreté ah jeexitalam. mooy dem ba ci comportement ni ñi accident yu bëri yi ngay gis yëpp loolu yëpp éducation moo ko mën a régler tey nag suñ le premier ministre defee conseil interministériel ci wàllum éducation jël ci lu ma trente ba pare waxaale ci affaire règlement intérieur boobu doon discriminer certaines fii yi nga xam ne wala certaines dames yi nga xam ne dañ doon muur ñuy am ay problème di dugg ci yenn école loolu tamit day am solo trop waxtaanee ko pour sénégalais yi xam dëgg-dëgg fan la toll et avancement yi fan la jëm docteur Bamba man bu ma xoolee conseil interministériel par rapport aux mesures yi nga xam ne le le gouvernement jël nañ ko sama xel day daal day dal lool lool lool lool ak romb dal mais kontaan leen ñaanal yàlla continuité parce que mesures yi ma gis yaakaar mun na am yaakaar mën na am sur tous les plans mënuñ wax lépp mais suñ ci jëlee quelque point day am solo mooy le premier ministre wax na ne ñu jël suñ éducation bi bàyyi waat xel dëgg-dëgg dëgg-dëgg ñun suñ culture loolu dafa am solo bañ a xale yi ay histoire yoo xam ne xamuñ sax des histoires étrangères mm-hmm. ñu ñëwaat ci histoire dëkk bi ñu xam seen dëkk bëgg seen dëkk ñu am benn citoyenneté bu dëgër loolu wax na ko te nee na day defaat refonte curricula yi te ñëppay jooy ne curricula Sénégal dafa am problème suñ système d'enseignement bi xale bi day jàng ba pare du mën dara loolu yëpp nee na dinañ ko def une refonte étudier waat ko defaat ko liggéeyaat ko ba mucc ay ba nga xam ne xale sénégalais bu ñuy former tey fii dina mën a am aptitude liggéey dëkkam am aptitude liggéey sur le plan international loolu dal na xel beneen mbir bi mooy mooy l'anglais nee na dina dugal anglais dans le système éducatif et lu tax anglais bi am solo yaa ngi ne pays pétrolier nga si waaw te nga war a xaar façon doomu aadama mu ne bu ne di ñëw ci sa dëkk te sa doo waa dëkk bi mënuñu communiquer ak nit ñi te xam nañ bu baax français soriwul mu ne anglais boobu na ko préparer une nouvelle génération d'ici vingt ans Sénégal nekk un pays boo xam ne ñu fi làkk anglais nañ bëri trop di mun a jëflante képp ku ñëw ci dëkk loolu ñu bañ maam ñu bañ a rek ci benn moyen de communication. exactement exactement sëñ Moussa bañ a yem ci français rek te lool sax day tënk nit fekk ci français nga yem rek da tënk. da lay tënk te mun nga amoon ay opportunité yu bëri sa benn langue bi rek tënk la tey su teelee préparé loolu mais lu ñuy wax du ñu koy wax dul félicité ko le premier ministre mesures yi jël am na solo baax na bañ a guddal su ñëwee ci côté euh, mesure yu mu jël mu ne moom dafa sentir ne état bi. état bu fi nekkoon dafa am faiblesse ci yenn réglement intérieur yi ñu doon jël le premier ministre a est revenu sur l'aspect du voile est revenu sur ça affaire discrimination yi mu wax nag lu am solo loo xam ne aussi ñun tamit déglu nañ ko ci di borom xel mu ne dafa am lu mu constaté ne li fi ne woon mooy état dafa amoon ay faiblesse par rapport aux écoles et par rapport aux certains instituts de formation te nag école yi ci territoire Sénégal lañ nekk. y compris les écoles étrangères yu mel y compris les écoles étrangères bépp école bu nekk ci territoire Sénégal état war na am taxawaay boo xam ne da koy taxaw def ay règlement intérieur li muy nangu yow soo buggee jóge sa dëkk ñëw installé da nga war a dëppoo ak lu état bi décide loolu mooy taxawaay état beneen mbir bi mooy tey nga nekk jàngalekat mm. nga ne xale bii kat su muuroo du fi dugg. mais yow jàngale woo yow yaa ngi jàngal nit ki discrimination est-ce que éducation la bokk ngay discriminer nit déedéet éducation ñun suñu rôle mooy da nga war a am tolérance accepter nit ki ci ni mel fekk yow da gis nit ki ne ah war na am ay jubbanti ci jikkoom wala yow lii doy la mais ci xam-xam nga ko war a convaincre mais doo jël ay mesures radicales voilà loolu c'est pas du tout normal loolu kenn ku nekk territoire sénégalais bi waroo ko accepter waroo ko naw te gouvernement bi nag lancé boobu ñu jël dama ciy kontaan nekkul ne lépp luñ def dañ ci war a kontaan parce que tamit duñ doon mukk ay naafeq mais lii yoon suñ ko defee dañ leen koy wax te ñu ngi ci yoon bu baax territoire Sénégal daal ki fi nekk war nga am ay règlement intérieur yoo xam ne état bee la ko tag nga dëpp ci bépp école bu fi war a nekk monsieur Traoré bu ma la déggee maanaam euh, règlement intérieur yooyu nga xam ne moom ngay wax lu fi nekkoon la wala ndax lu bees lu fi état mu bees bi indi. état bi bu fi newoon dafa bàyyi woon école yi def seen règlement intérieur yu leen neex wax ji loolu la école bu ibbi jóge étrange ñëw yaay xool li ma neex li moo ma lii laa sentir lii laay def waaw lii laay jël lii du ma ko jël nga nekk ci territoire dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ñoo xam ne way gëm lañ nga ne da doo tànn ñi nga xam ne dañoo muur loolu c'est pas du tout normal beneen mbir bi mooy y a personnes qui parlent de religion c'est des écoles catholiques tout ça mais moi je crois pas à ça mm-hmm. moi je n'ai jamais vu Marie sans voile moi je n'ai jamais vu Marie sans voile ça c'est un point parce que buñ jaxasee buñ jaxasee wax yi jaxase wuñu wax yi l'État rôle bu mu war a jouer mooy ñëpp nekk ci jàmm te du am xaaj ak seen règlement intérieur bu premier ministre wax mooy ñëpp sentir ci seen bopp ñëpp gis ci seen bopp mooy xale bu muuro bu muuruwul mun a am droit dem jàngi te yàlla loolu la wax de ah buñ forcé kenn waaw ku nekk da koy bàyyi ci lim gëm nga convaincre ko ci xam-xam indi ko ci ci teey bakkan ci paix ak stabilité voilà donc je pense que. est ce que nekkul boo gisee lu tax ñu ciy insister gisoo ne maanaam en général bu concours général amee. Mm-hmm. ñu ciy gën a xarañ en général ñi nga xamante ni dañuy muuroog yu mel noonu loolu moo tax mu gën a insister wala ndax dafa da ciy insister ngir ne kenn ku nekk ñu jox la sa àq. exactement waxu premier ministre yëpp dafa ne kenn ku nekk ñu jox la sa àq wax ji buñ ko déformé buñ ko yóbbu fen parce que am na xale yoo xam ne muuruñ te il bosse bien loolu yëpp ça dépend ci l' ak encadrement la parce que man xale dama ne lu koy def excellence mooy l' encadrement de ses ak wastu àq bu seeni parents def pour xale bi réussir. voilà mais nañ jox ñëpp seen àq. loolu la jàngat bi am na solo docteur. Euh, noo gisee kàddu premier ministre yi nga xamante ni yëkkati na ko ci conseil interministériel bi nga xam doon noo ko amal ci semaine bi ñu génn muy insister waat ci règlement intérieur yi nga xamante ni moo nekk ci école yi pour ñu appliquer ko maanaam euh, nga xam ne mi ngi mi ngi sax gën a insister ci xale yi nga xamante nii dañuy muuru mais aussi parfois ñi leen di buntu xatal ci yenn école yi. jërëjëf Cheikh mosa vraiment di féliciter n'est-ce pas donc euh, monsieur Traoré Amadou n'est-ce pas donc ci analyse bi nga xam ne ni indi na ko par rapport ak mesures yi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko en tout cas indi na ko n'est-ce pas donc ci réunion euh, de préparation donc de rentrée bi mu doon def euh, le jeudi 19 septembre bi passé mu wax ci n'est-ce pas donc ay mesures yu ama ama ama am solo vraiment donc ñu ngi ko ci féliciter te du ma ci revenir kon damay revenir rek ci yeneen mesures yoo xam ne n'est-ce pas donc donc loolu loolu lañ gën a soxla xam ndax boo xoolee dafa ñëw indi ay points am solo yoo xam ne éducation da koo soxla tout à fait mu développé ko justement bokk na ci mesures yooyu itamit ba tey mooy li nga xam ne ne mooy rentre bi nga xam ne c'est prévu le 7 octobre en tout cas pour les élèves pour les enseignants peut-être je pense que c'est le 3 ñu li ñu war a njëkk def mooy école yi nga xam ne xam ne ñun ñëpp xam nañ ñu ngi ci nawet nawet bu jotee école yi n'est-ce pas donc nawet bi mën nañu wax daf koy xaw a yàq daf koy endommagé moo xam ñax yi si nekk ak ndox yi ak sax ñenn ñi nga xam ne seen kër yi ndox mi da koo nangu dañuy ñëw di dëkk ci école bi mu ne li ñu war a njëkk def mooy réhabiliter école yi mooy setal leen réhabiliter leen pour que élèves yi ak professeur yi buñ fiy ñëw ñu nekk n'est-ce pas donc dans un cadre boo xam ne n'est-ce pas donc dinañ ci loolu bokk na mu nekk ci ci mesure bu am solo ñaareelu yi mooy li nga xam ne ni mooy abri provisoire xam nga ñun ñëpp xam nañ ne abri provisoire en tout cas l'ancien directeur de la communication et de la formation donc du ministère de l'éducation nationale wane woon na ni Sénégal de 2012 à 2023 nous sommes passés de 8000 à 5000 abris provisoires léegi nag le premier ministre Ousmane Sonko nee na bokk na ci mesures yi mu bëgg def muy abri provisoire yëpp dañ koy éradiquer te loolu moo ngi ci woo le secteur privé man passage boobu moom ma ci gën a neex ndax man dama seetlu ne du ma ni les les pays développés en tout cas certains pays yi nga xam ni ils sont même en voie de développement mais écoutez des fois ils appel n'est-ce à euh, au secteur privé à des yi nga xam ne ils travaillent avec l'État maanaam ñoo xam ni ñoom euh, léeg-léeg dañuy liggéey ak État État di leen di jox marché n'est-ce pas donc mu am donc lu am solo loo xam ne léeg-léeg lu si bari dañ ci bàyyi xel. muy lan mooy la responsabilité sociétale d'entreprise mu ngi ciy wole secteur privé mu ni képp koo xam ne am nga localité moo xam immeuble nga moo xam kër la moo xam lu ma mën doon ñëwal ñu liggéey ñu xool naka la ñuy éradiquer n'est-ce pas donc ces abris provisoires mu nekk vraiment aussi lu am solo bokk na itam jusqu'à présent itamit ci mesures mooy journée de set setal dans les écoles xam nga le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu ñëwee dafa instauré ni chaque samedi du du chaque premier samedi du mois dañuy def un set setal national léegi le premier man Ousmane ko mu ñëw feddali ko ñu ni léegi ci biir école yi itamit mën na am sax dañ ko si continuer wala sax ñoom it ñu jël seen jour boo xam ne ni en tout cas chaque mois une journée de set setal mensuelle boo xam ne dañ koy organiser te loolu ñun en tout cas man personnellement je me rappelle bi may nekk élémentaire ñun suñuy directeurs yi ak suñuy maîtres yi dañ daan organiser ay journée de set setal ñuy setal école yi toilettes yi classes yi te loolu dañ si suñuy directeur suñuy maîtres mu nekk vraiment ay images yoo xam ne sont des images loolu jàpp naa ne yu mel noonu dañ ko war a dekkaliwaat ndax ay c'est c'est c'est vraiment des choses yi nga xam ne ce sont des choses patriotiques loolu vraiment itam ñu si saluer n'est-ce pas donc le premier ministre waaye beneen mesure bi nga xam ne ni jël na ko muy l'uniforme des établissements foofu nag si la ñëwee indiwaat la question n'est-ce pas donc du voile bi nga xam ne moom la soulevé woon n'est-ce pas donc au concours général n'est-ce pas donc euh, bi nga xam ne ni moom la ñu organiser woon ci foofu noonu la ni léegi nag dootuñu nangooti n'est-ce pas donc que les écoles ne respectent pas le règlement intérieur parce que gis nga la question n'est-ce pas donc de l'éducation que ce soit du voile ou même pas de ne pas voir en la question du culte cest à constitution moo permettre képp koo xam ne ni ci dëkk bi nga moo xam da ngay jàng moo xam fan foo bokk ban appartenance religieuse nga am moo xam way ngëm nga moo xam doo way ngëm yow état nga xam ne en rapport avec l'éducation nationale dafa war a respecter sa gëm-gëm mm-hmm. léegi nag ñun li ñu gis nag nekk ku respecté gëm-gëm. est-ce que si question uniforme bi ngay wax noonu est-ce que du pousser yenn écoles yi euh, ñu changer seen couleur kii ndax boo xoolee am na yenn écoles yoo xam ne seen couleur école maanaam uniforme yi boo xoolee exa maanaam e-, euh, euh, naka laati seen uniforme yi seen boo xoolee rek automatiquement da ngay xam ne lii nii maanaam couleur maanaam da da da couleur bi waaw da. budul diine la même couleur diine sax mën na nekk couleur parti wala yu noonu. ci boo ko jëlee ci côté politique. effectivement bon peut-être xëy loolu sax peut-être bon en tout cas dañuy jàpp ni peut-être en tout cas man personnel peut-être naa jàpp ni jugement de valeur parce que en tout cas il n'y a couleur boo xam ne ni moom la wax ni couleur bi moom mooy couleur parti sangam wala couleur parti sangam. Ah, bon demee ci école yi de. waaw effectivement bon mën na nekk. comme mën naa ko par exemple da ah léegi <laughs> léegi xam nga boo gisee boo gisee couleur boobu noonu automatiquement dina am sa partie bu sa xel dem. mais d' accord léegi mais su fekkente ni ñoom ah, couleur marron beige dañ ko yàq adopté Moussa ah du ñu ñëw wax ni kat couleur bi ni xëy na mooy couleur parti sanga parce que bu ñu xam bu ni parti marron beige couleur marron beige quand parti boobu quand même nekkul parti boo xam ne lu parti bu yàgg la parti bu récent léegi su fekkente ni gis nañ peut être en tout cas école boo xam ne ñoom seen couleur uniforme marron beige la bon on quand même voilà en tout cas ñoom ñoo choisir bon n'empêche néanmoins moom li mu insiste sax nekkul sax par rapport aux couleurs mais par rapport n'est-ce pas donc à l'uniforme à l'uniformisation n'est-ce pas donc moo xam képp ki nga xam ne ni euh, école bi nga xam ne ni comme ñu bu ñëwee ci question du voile maa ngi koy préciser léegi la constitution les arrêtés les règlements intérieurs les arrêtés ministériels ñëpp ñoo ñoŋal li nga xam ne ni mooy gëm-gëmu ki nga xam ne ni moom mooy jàngale ñu respecté ko gëm-gëm koo xam ne moom dafa jàpp ne moom religion am da ko permettre kooku dañ ko koy respecté koo xam ne ni religion am daf ko nee na moo indi une croix kooku dañ ko koy respecté koo xam ne ni religion am en tout cas l' essentiel mooy que na bañ a impacté nest pas donc si jàng bi. maanaam su ma la déggee daal comme par exemple ki nga xam ne dafa bëgg sol jupe boo xam ne jot na. ñu bañ koo wax ne ko fii la war a yem ak di ko conditionné ak yu mel noonu. effectivement mu ngi noonu et puis sax euh, ñun dañoo jàpp ne xam nga école itamit sa première vocation quand même mooy du jàngal kese ma la léegi yar nag dafa bokk n'est-ce ay valeurs ñun nag Sénégal dañoo am ay valeurs wax dëgg yàlla ay valeurs xam nga ñun quand ñun xamuñu xale bu ndaw boo xam ne ni da ngay ñëw sol as cipp su ndaw wala ab loo xam ne ni dafay feeñal sa yaram ñun suñuy valeur ak suñuy culture ak suñuy si boppam moo nanguwul lool ba tax na. Euh, néanmoins du ñu empêcher kenn koo xam ne ni n'est-ce pas donc moom am na un choix par rapport n'est-ce pas donc à sa mais li ñu li ñu li li li gën a yitteel nest pas donc le premier ministre mooy que nañu respecter nest pas donc kenn ku si nekk li nga xam ne ni moom la constitution tëral te constitution moo tëral ni kenn ku si nekk nañ ko respecter en tout cas gëm-gëm koo xam ne moom elle a fait un choix pour bañ a mais ko kenn du ko forcer ne que par muuru da ngay force koo xam ne ni nag elle a fait son choix mu ne moom dafay muur boppam dafay téye loxoom du jox loxoom kooku tamit nañ ko nangul ni xam ne peut-être religion n'est-ce pas donc moo ko permettre mu def loolu ñu am une certaine tolérance par rapport à ça. Euh, docteur Bamba. di mhm. rafetlu trop sa intervention. bi bi ci yokk rek mooy mbir moomu mbir mu graaw la. tout su ko gouvernement bi réglé wul. tout à fait. da constitution bi dafa ne ñëpp a am et le droit à l'éducation est fondamental. muy benn ñaar ay léegi eh, Cheikh Moussa tey lu ñuy wax ñoom mooy léegi ki muuruwul moo am droit nekk fu ko neex ki muuru moom dafa am école yoo xam ne mën a dem ak yu mënta yu dem daa am fu mu yem léegi premier ministre ne loolu du am képp am na Sénégalais comprendre loolu ñëpp am droit dem fu leen neex foo mënti bokk ak noo mënti. loo mënti gëm noo mënti gëm. loolu rek la loolu mooy problème effectivement ah. buñ ko yóbbu feneen.